juin de la CNTS secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries alimentaires camarades travailleurs des grands moulins de Dakar chers invités également à ma qualité de vice-président du Haut Conseil du dialogue social j'ai suivi tout le processus depuis le déclenchement. J'allais même dire que les travailleurs des grands moulins de Dakar ont suffisamment alerté. Ça, personne ne peut le contester. Et en dialogue, il y a deux dimensions fondamentales. C'est l'alerte et la prévention. Maintenant, la médiation va Et nous, y reviendrons tout Donc, dans le cadre de l'alerte, Ce que les travailleurs ont fait, c'est tout à fait normal, c'est la communication à travers un groupe WhatsApp. Alerter ce que la direction n'a pas compris. La direction devait être réceptive par rapport à la communication des travailleurs et essayer d'anticiper sur les problèmes en de leur trouver des solutions. Cela n'a pas été le cas. Là, les grands moulins de Dakar ont failli. Ils ont failli parce que ils ont tenté de, de faire de la diversion et d'user des, des pratiques, des primates, qui jurent avec les, bonnes pratiques du dialogue social. Je crois que nous sommes dans un pays de droit. Et tout à l'heure, le camarade Lamine Fall, je pense même Seynobou, le droit a été dit. quand vous saisissez une juridiction, une administration chargée de faire appliquer, de veiller et de faire appliquer la législation dans ce pays, la direction des Grands Moulins ayant saisi l'inspecteur du travail, l'inspecteur a dit le droit. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il reste à faire C'est de Nous avons mené des médiations pour essayer même de sauver les meubles pour qu'il n'y ait pas de vainqueur ou de vaincu. Et nous avons demandé aux délégués, aux responsables syndicaux de sursoir à la plainte pour les cinq travailleurs qui ont été licenciés et d'entamer des médiations au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Cela a été fait, mais malheureusement, malheureusement, là, jusque-là, la direction des Grands Moulins n'ont pas compris. C'est avant-hier qu'ils ont été reçus par notre institution de dialogue social, ils ont campé sur leur position pour dire qu'ils ne peuvent pas revenir sur les décisions d'avoir d'avoir déjà licencié cinq travailleurs pour les mêmes motifs. Oui, ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Parce que tout à l'heure, Seydou disait que les travailleurs ne jouissaient pas d'une protection parce que ce sont les délégués qui sont protégés. Et heureusement, elle a rectifié en disant que dans le cadre, dans la période de la pandémie, de la Covid, tous les travailleurs, tous les travailleurs, en tout cas qui sont dans le secteur privé régi par le Code du travail, ont eu une protection. À travers, et l'inspecteur l'a dit, et c'est ça les conclusions de l'inspecteur du travail. En application de la loi d'habilitation et l'ordonnance numéro 001 2020 aménageant des dispositions dérogatoires à l'article 65 du Code du travail, il n'est pas possible dans la période, toute la période, durant toute la période, de licencier un travailleur pour quelque motif, sauf peut-être une faute lourde. Et l'inspecteur a dit que les travailleurs n'ont pas fauté. Si les grands moulins de Dakar, ceux qui gèrent les grands moulins de Dakar, étaient intelligents, ils auraient pu saisir la balle au rebond, en tout cas la perche tendue par le Haut Conseil du dialogue social, pour faire réintégrer les cinq travailleurs. Une copie de la saisie sera transmise à la chancellerie, à toutes les chancelleries, y compris la chancellerie des, des États-Unis, pour information On ne s'arrêtera pas à ce niveau simplement d'information. L'Organisation internationale du travail sera saisie parce qu'il s'agit de violations des droits de l'homme. Le comité sénégalais des droits de l'homme, le comité africain des droits de l'homme de la CEDEAO les commissions, la commission des droits de de la CEDEAO, toutes les organisations de défense des droits de l'homme seront saisies parce que la liberté syndicale est un droit fondamental. But not les juridictions compétentes d'anciens, parce que ce qui s'est passé, cette violation-là, parce que des travailleurs qui n'ont pas voté, mais comment, on est dans quel pays On se permet un bon matin de licencier, sans faute. sans fondement. Je pense qu'il y a un danger qui court pour éviter qu'on installe ce pays dans les dans la violence dans l'escalade. vécu daa la bëggee expliquer pour wax leen ni ñii de quoi ils sont capables dama la jox benn pour wax leen ñii ils sont de quoi ils sont capables muy DRH ak DCA keroog bu ñuy jox suñu lettre de notification de mise à pied conservatoire. man je suis électricien au Grand Moulin de Dakar yéen ñëpp xam nga ni électricien bu ñëwee day summeeku sol tenue te xam ngeen ni tenue simmi ñu rek am na ñàkk tenue boobu laa sol da muyu DRH ak sama ak sama camarade camarade délégué bu ñu demee ñu nangu suñu badge bu ñu nangoo sunu badge ñu notifié nañu ni dootuñu dugg ci Grand Moulin de Dakar ma ne na ko ma ne na d'accord naa si loolu léegi lenn laa di ñaan man sama yëreñ ci biir sama tenue laa sol du ma ñibbee sama tenue dimbali leen ma ma dem changer sama yére jël sama yére au moins ma xëppoondoo sax sol sama yére ñibbi wala ko mënul aussi ngeen boole mag dit ñu ne ma ñett du fi am hmm? loolu ñu bëri yëguñu ko dama ne tey nag dinaa ñu wax ko ñu ne ma ñett du fi am ma ne lan mooy solution bi léegi ñu ma jox ma say jox leen ma sa caabi ma jox leen sama caabi seen benn élément dem jël sama yére def ko si mbuus yére bi si chiffonné chiffonné chiffonné mais xanaa malaa sax malaa malaa kenn du ko def noonu problème ñii duñu nit nit parce que parce que li leen animé doomu aadama toroxal doomu aadama la moo leen animé du leneen du leneen sama yére dama mujjee bu ñu ma indilee sama yére si si si si mbuus mi dama mujjee ñaan gardien gardien yi nekk à côté ma ne dimbali leen ma ma làqu fi simmeeku yàlla xam na ne fi ma làqoon ñu doon romb ñu ma gis maa ngi simmeeku sama collègue yi mënuñ ma bàyyi ma fenn bi may simmeeku sama sama ñi doon romb si tali ma gis ma ne noonu garawul natt bu may yàlla teg la naa ko nangu waaw sol sama yére dem loolu affaire mais léegi pour les cinq délégués pour les cinq euh, dëgg naa ni le ministre les a reçus il il a reçu le le, le directeur général ak le DRH mais ñoom notification bu ñu def ci seen licenciement ak lu ñu wax ministre di diamétralement opposé ay fen kese la du dëgg du yoon dëgg naa nag dañu ne ministre bi ñoom travers ñoo bundu xatal bavaar ba ko mu daanu

motif boobu moo war a delloo si cinq travaux yi te incha allahu rabbi dinañ dellu si incha allahu rabbi